asalaamaaleykum mbokk yi teel a ñaar fukki fan ñett ci jumaadal ula muy weeru rakkaati gàmm ci atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñaar ñaar fukki fan ak ñett bokkul ci lim yu fa yi lim bu rafet la kon tey ji dibéer ji rafet na li ñu ciy teetera wàccandiku moom dibéer mooy ku ca watu wala ku ca tàggoo ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal nga defal ma yi waral sa yërmande maanaam yi tax a am sa yërmande ak yi tax a am sa njëggal allahuma inni asaluka mujibaati rahmatika wa azaima maxfiratik allahuma inni asaluka mujibaati rahmatika wa azaima maxfiratik xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kersa du indi lu dul aw yiw xadiis bi dëppoo nañu ci qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxayaau laa yati illa bi xayr muttafaqun alayhi waxtu julli yi suba waxtu doon na tàbbi six heures sept di juróom benn waxtu yu tegal juróom-ñaari simili tisbaar treize heures vingt-neuf di benn waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent tàkkusaan seize heures vingt-neuf di ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak juróom-ñeent timis 18 heures 44 di juróom benni waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak ñeent gee 19 heures 55